préfet bu Mbàkke Makhtar Lo wooteeb ndaje woo ci maire bu Mbàkke waaye woo ci ay kilifa yi di nekk taskatu xibaar yi waxtaan bi tënk woon ci xool nees dañuy jàngate xeex yu metti yi nga xam ne ay gune doon nañ ko def ci dig bi rawat ci guddi gi fii ci Mbàkke ak Touba. xam ne ñenn si askan bi dañu génn ne dañoo sonn si couvre euh, nit mën a comprendre lu ñu mën a expliquer la aussi euh, ñu jàpp euh, jàppoon ne. Euh, comme loolu amone amna fi département de Mbacké notamment euh, Mbacké ak Touba amna euh, commune de Djourbel, mu na ñëpp ci région bi préfet yëpp ak sous-préfet yi ñu waxtaan ci loolu ak askan bi pour que ñu jangat li xew xol lan mo ci rëq-rëq ci doxalin ndax combat bi ñu nekk euh li ñu naan combat sanitaire la dañu nekk ci jamono mbas feebar bu fi nekk te ñun ñëpp dañu nekkoon ci fexe ba feebar boobu jóge fi mu ànd ak nag ay jafe-jafe jafe yooyu naka lañu doon ni ñu doon defee ba nga xam ne dinañ xeex ak jàngoro ji jàngaro bi ba pare jafe-jafe yooyu ñu dund ak moom naka nañ ko doxe loolu lañ doon saytu tey gis nañu ne si biir jafe-jafe yooyu waxoon nañu ne gouvernement bi dina indi euh, ay denrées jàppale nit ñi waxoon nañu ne collectivité locale yi ñaax nañ leen lu ñu am si doole ñu dugal ko si si xeex bi jàppoon nañu ne nañu gën a waxtaan ak également population ñu comprendre ne jafe-jafe du du ñàkk si wàllu dem ak dikk bi yooyu yëpp jëfe jëfe nañ ko mais lu nekk mën nañ ci gis loo xam ne xëy na li ci sooxe moom moo tax nit ñi am attitude bi ñu am démb loolu jàngat nañ ko fii te jàpp nañu ne euh, benn bu fekkee ci wàllu distribution denrées yi la dinañu gën a ñaaxaat te am nañ espoir boobu parce que comité ciblage yëpp def nañ seen liggéey li ci des rek mooy compléter quelques denrées yi desoon pour que distribution bi mën a commencer lolu ce nañu ne ak fan wala la ak waxtu lolu dina fété fété bor c'est bi moy waxtaan bi ñu wara a waxtane koku dinañ ba approche communautaire bi gëna exister ndax fofu aussi ñaan nañu suñu kilifa diiné yi ak ñi nga xamni ñi ngi yenn euh, structure communautaire ñu mel ñu jouer un rôle sur lolu ndax information yu bari nous na niñ xëy na bu ñu amee bu ñu amoon cadre yooyu nga xam ne dinañ mën a weccoo xalaat ak nit ñi xëy na lu bëri si euh, li xewoon démb waroon na mën a mën a mën a ñàkk. mu nekkoon ndaje bu am solo waa société civile waaye it association de jeunesse yi ñëpp teewoon maire bu Mbacke du Mbacke Ndaw di sàkku ci kilifa yi nu yéwénal ñi nga xam ne teg nanu leen loxo te jamono ji lu nekk ci commissariat yu Touba ak yu Mbacke. maa ngi ñaan euh, jëmale ko ci. si jëmm le commissaire de police le commandant de la gendarmerie ba mu àgg ci procureur pour que ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñu teg leen loxo ñuy ñaan ñu woyefal teg boobu ñu leen teg loxo ndax ñu fi bëri sax bokkuñ ci manifestant yi ay innocent la ñu yoo xamante ni am na ay xale yu jigéen am na ci ñoo xamante seetaan moo lañu ci yóbbu am na ci ñoo xamante sax euh, ñoom daanaka lañuy def boo leen laajee ñoom taxuñu leen woon a jóg peut-être leneen leen taxoon a jóg ñu jàpp leen kon nag ñuy ñaan ñu woyefal leen bàyyi leen ñu nit ñuy continuer ak suñu mbokk yi nga xamante ñooy kilifay diine yi gën a waxtaan ak xale yi gën leen a dalal ba li nga xamante amoon na mu tege ko du amati fi may daanale mooy inshallah allahu rabbi comme ni nga xamante ni ñoom xale yi doon manifester dañoo bokk ci les impactés ci Covid bi nga xam ne coono ak jafe-jafe rek moo leen poussé bu ñu def loolu euh, comme ni ma ko tout à l'heure dès demain euh, la ñu war a dernière réunion réglage pour couche yépp impacté wu ci Covid bi. ñu mën a anticiper man leen a teel a jàppale ko ñu am lu ñu jàppandikoo le temps que incha allah ñu rema ñu démarrer activité. gannaaw meer bu Mbàkke Serigne Mourtala Bousso teewaloon fii Serigne Abdoulahi Mbàkke yàllaay wur ak Serigne May sekk ñoom ñëpp dellu bamtu yooyu kàddu te am nañ yaakaar ci ne incha allahu jiir bu gàtt lépp dana jeex incha allahu te ñu ngi ci rafet njort bu baax a baax ndax ñi leen ñi ngeen jàpp nañoo ñoo leen teg jafe-jafe itam jàmm képp lañ leen bëggal ndax wér-gu-yaram képp lañ leen bëggal loolu nag laaj na ñoom ñëpp ñu xam ko mi ngi waxaat tam ne euh, mi ngi sant préfet bu baax a baax waaye itam mi ngi koy fàttali ne li mu ko waxoon léegi wax ko commissaire mooy njaboot gi nga xamante ne bii téye nañ leen te ñëpp di ay njabootam mi ngi ñaan ñu oyofal bàyyi leen ñu delluwaat ci seen i kër incha allah bu ñu delluwaat ci seen kër tam lañ leen war a wax danañ ko wax ak ñoom jàpp nañ ne lii nga xamante ne bii moo fi amoon man yàlla mën naa dogal dootu fi am bu soobee yàlla. mooy kàddu yi jéggalu askanu Sénégal. du ñu wax waa Mbacke ak waa Touba rek mais di jéggalu ñëpp ñoo xam ne gis nañ li xew démb fii ci Mbacke ñu koy tuub di jéggalu di sëkku ci seen kanam di leen ñaan au nom de toute la jeunesse ñu jéggal ñu xam ne doomi aadama la rek leen dañuy juum donc dañoo juum mais ñu ngi koy jéggalu di jëlaat lépp di ko teg ci kaw ndaw ñi parce que ndaw moo mën lenn li moo tax ñu ngi tuubal di tuubal suñu waajur yi ñëpp di jéggalu nag ki nga xamante nii moom la ñuy yaakaar tey ak ëllëg muy Serigne Mountakha Bassirou mu ngi tuubaat di sukkaat si sunu kanam di ko jéggal di ko wax ne moom moo ñu gënal sunu ruu yi nga xam ne ne Séné Sénégal xale Sénégal ñëpp ko bëgg amul tiijaan amul xaadar amul murit amul katolik ñëpp ko bëgg kon ñu ngi tuub ci kanam di jéggalu li fi xew te mu dégg ko te nga xamante ni Touba ak Mbàkke benn la. rafet lu taxawaayu kilifa diine yi fi nekk fii donc ñoom ñi nga xamante ni plaidé nañ loolu devant le si kanamu préfet bi ak commissaire bi ak commandant de la gendarmerie bi fi nekkoon. ñuy wax que ne ñi nga xamante ne dañ leen a jàpp ci xew-xew yooyu amoon ñu jéggal leen ba ñu mën a delluwaat seen kër ci jàmm ak salaam parce que dañoo juum rek ñu koy ñaan di ko ñaan kilifa yi nga xamante ne ñoo nekk ci kaw donc di si jiital borom réew mi ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoo yor wàllum yoon ci réew mi aussi tam itam te jiitaleen ñu ñaan ñu jéggal xale yooyu noonu ba ñu mën a seen kër mën continuer seen activité parce que mbir mi metti na suñ ci boolewaalee tëj am day gën metti ñuy fàttali ne ci commissariat yu Touba gën gaa néew juróom benn fukki doomu aadama ñu ngi foofee nu téye ci commissariat bu Mbàkke bi fanweer ak juróom-ñett